en attendant Alfie ñuy wàcc jëm 11h ñu bàyyi la <laughs> Euh, dem ak ñun ci li nga ñuy toggal ak euh, beurre bocage. 11h pile allah waaw koñ Pape Cheikh euh, comme ni ko waxee beurre bocage tëj semaine bi ak benn recette boo xamante ni ma nga jógee Amérique wala ñu ne ñu woowee ko sax recette fast food parce que ku ne hamburger xam ne fast food yi ñoo gën a mën a ñoo gën a xarañ ci di ko di ko jaay. institut bu nekk nag am ci sa bos ku nekk daal di defar mijoter sa hamburger hamburger au poisson da nga koy gis di gis ay hamburger yoo xam ni classique bi ñëw ci bu chicken burger bi boo déggee chicken burger xam ni appellation bi am na tuuti anglais muy chicken di ginaar burger di euh, xeetu mburu yu rond yi nga xamante ni à base de pain au la maanaam patu pain au moom la ñu jël defal ko beneen beneen forme boo xamante ni ci la ñu jël li ñuy séen nii ci kaw di ay graines de sésame donc moom tamit bokk na ci nga xamante ni lépp di ñaax nit ñi ñuy consommer ay céréales di consommer ay fruits ak ay légumes xaadim euh, yaa ngi gis rondelle de tomate tomate farcie yi nga xamante ne euh, maa ko sama bopp mu nekk tomate yoo xamante ne ay tomates yu charnu la tomate yu bëri ñam yoo xamante ne euh, suñu suñuy lekk hamburger yi da ngay gis ni tooy tooy boobu ci hamburger bi ak cafka bi tomate bi moom moo koy andi yaa ngi gis nag xaadim fii nga xamante ni maa ngi fi am ay blanc de poulet blanc de poulet yoo xamante ni ci suba dañ ko émincé maanaam dañ ko dañ ko tranché biñ ko tranché ba pare assaisonné ko ci suba bi ñu nuyoowee Pape Cheikh euh, ci la ñu tàmbalee euh, defar suñu assaisonnement donc ni ñu ko defaree juste pour montrer euh, exemple bi mooy que dañu jël tranche blanc de poulet yi daal di koy wër wërale ci ci ci farine bi maanaam tartiner ko ci farine bi laataa ñu koy def ci nen bi nga xamante ni moom la ñu moom la ñu toj. Euh, juste rappeler que ñu bañ a fàttali sàppali nen bi sàppali farine bi euh, parce que daf ñuy permettre su fekkee dañuy lekk euh, poulet yi cafka bi bañ a wàññeeku loolu li la koy permettre mooy que su fekkee sàppali nañu ginaar bi ba pare daal di def quelques épices def épices kebab def. sauce barbecue def laaj def poobar def xorom loolu suñ ko defee ba pare dañ koy def ci nen bi daal di koy def ci farine bi loolu def ñuy permettre suñu lekk blanc de poulet yi ñu mën a maintenir euh, caf ko boobu nga xamante ne moom moo si nekk donc yeneen yi ci des ñoom it dañ leen di def vite fait aller retour ci euh, nen bi euh, ak ci farine bi laataa ñu koy terminer ak chapelure bi donc mi ngoog pour andi croquant boobu nga xamante ni moom la moom la poulet bi di waaja di waaj a andi donc su ko defee nag xaadim bu ñu raxasee loxo yi ba pare yokk gaz bi euh, ñu daal di commencer euh, saaf euh, chicken burger yi comme en général bu ñuy faral di defar sunu ay hamburger soo jëlee steak yi steak yi nga xam ne da nga koy mélanger assaisonné ko daal di koy saaf donc moom la ñuy ñëw def ko nii ci dëwlin bi ma teggil la mburu yi maanaam pain pain burger yi nga xamante ni moom euh, bëri na parce que gaa yaa ngi ñëw sànq ba léegi ku nekk di réserver lan nga si bëgg lekk léegi nag dañuy saaf blanc de poulet blanc de poulet bokk na ci euh, maanaam bokk na ci ingrédients yoo xamante ni limite dafay gaaw a ñor soxlawul mu yàgg si taal bi gis nga niñ ko émincé nga xamante ne tranche yu ndaw lay nekk tranche yu fine yoo xamante ni dafay gaaw a ñor su amee 4 euh, jàpp cinq minutes ci ci ci ci ci dëwlin bi même pas sax da ngay gis ni euh, day ñor xomm parce que dëwlin bi euh, yegg na ci benn degré boo xamante ne soo ci defee blanc de poulet bi soxlawul mu ciy yàgg parce que plus muy yàgg plus ngay am blanc de poulet yoo xam ne dafay wow soo ko màttee sax limite daf lay màtt ba pare di di metti bëñ donc dañ koy saaf de telle sorte que dañuy garder moyen la bi nga xamante ni moom moo nekk ci ci ci blanc de poulet bi pour soo koy lekk ak mburu bi soo xampee da ngay gis ni blanc de poulet bi dafay ñëw euh, facilement donc loolu li ñu koy permettre mooy que mu bañ a yàgg ci ci diwlin bi benn yoon donc dañuy terminer ñaari ñaari ginaar yi nga xam ne moom moo fi des wërale ko ci euh, nen bi su ko defee ñu terminer ko ci biir euh, ci biir euh, nu mu tudd chapelure bi donc mi ngo nañ ko def ci chapelure bi daal di ñëw nag ci li nga xamante ni moom mooy montage euh, chicken burger yi donc nag xam nga soo nee légumes xam ne salaat ak tomate sax si léeg nga gis ay rondelles d'oignon mais man vendredi du may bëgg di togg soble parce que dafa am lu tax moo tax andiwu ma ko mais soble euh, li nga xam ne moom mooy cornichon li nga xam ne moom mooy tomate farci ak salade yëpp dafay dem ci chicken burger donc xaadim mën nañu retourner gis nga andi na couleur doré bi nga xam ne moom la ñu soxla mi nga donc pourquoi pas euh, pourquoi pas reprendre ko ak euh, sunu doom yi nga xam ne ñoom ñoo nekk kër ga nga xam ne ay hamburger moom ku leen ci fiit jàpp leen parce que du bokk na ci plat yoo xamante ne xale yi moom lañu gën a bëgg ak ay patak yooyu yooyu yooyu seen donc mijoter euh, genre recette yu mel nii nga xamante ne da jël. Euh, xale bi dugal ko à 100 pour cent ci biir recette bi donc xaadim dama lay monter nii benn nii nii en direct donc hamburger bi xar nañ ko daal di wàññi tuuti ñu xit bi nga xamante ni moom moo nekk ci biir donc dañuy ñëw ketchup def mu taar ngoo def ko ci biir bu fekkee am na ñoo xamante ne du ñu lekk ketchup léeg-léeg nga dégg kenn ku ne la bëgguma moutarde am keneen ku ne bëgguma mayonnaise mayonnaise bi nag xaadim fait maison la waaw fait maison la boo xamante ne ñun ñoo ko defaral suñu bopp pour mën a am plus de de pour mën a xam plus li ñuy li ñuy lekk parce que des fois di defar say mayonnaise maison moom mooy gën sax euh, mayonnaise yi nga xamante ne moom la ñuy moom la ñuy donc dañuy def tuuti moutarde moom tamit dinañ ko def ci biir ngop maasale ko bu fekkee ñi nga xamante ne dañuy lekk kaani ñu ñëw def seen kaani ñeneen ñi ñu dul lekk kaani bañ a def kaani mi bu ko defee nag ñu daal di tànn benn bi nga xamante ni moom la ñu jëkkoon def nga xam ni fi mu nekk nii ñor na ma koy tegee nii mu sedd léegi nii rek ñu def ko ci biir daal di seppi seppi yi si des pour li ma wax léegi ñor bi bañ ëpp xam nga ne nag moment bi beurre bocage la ñuy àndal bër bocage nekk beurre dou yi nga xamante ni euh, ñoom la ñu taamu suñuy ndékki taamu ko def suñu ay recette parce que beurre bocage chaque fois ma wax ko dafay dugg à 100 cent ci biir euh, recette yi euh, beurre bocage di koy utiliser pour defar sunu ay pâtisserie di ko utiliser di defar sunu ay recette sucrée wala salée beurre bocage dafay dugg à 100 pour cent ci biir recette bi xam naa euh, su fekkente ni mën nañu defar rapidement laataa ñu dellu ci Baye Cheikh parce que sama waa ji nee na day dem ba 11h te loolu defe naa ñëpp dégg nañ ko ñu teg salade daal di jël benn tranche tomate bàyyi teg ci kaw. su ko defee nag ñu daal di jël benn poulet bi nga xamante ne moom la ñu génnee blanc de poulet bi daal di koy teg ci kaw bii nag soxlawul fromage soxlawul yeneen ingrédients yi nga xamante ne moom la ñuy euh, def en général suñu ay euh, chicken burger booba bii du la ko mën a jox xanaa ma dagg ko si bi moom mi ngi ñëw ci suba ba léegi ne ma naa ko jox burger bi nga xam ne moom la ñuy def li ci des nag pap ku nekk yaa koy tànn sa kër frite comme sautée wala yeneen euh, potatoes waaw yeneen yeneen accompagnement yoo xam ne mën nga ko teg ci côté bi daal di rangale say sauce def sa moutarde def sa ketchup pour mën a changer sunu ay méthode de lekkin Pape Cheikh américain oui en fait. voilà moo tax bu ma wàcc l'américain <laughs> mais dama koy dagg ci digg bi pour ñëpp mën a am pam. <laughs> voilà à tout à l'heure 10h22 euh, mooy euh, doog jot ñu ngi leen di ñaanal.